Eh, under 15 yi waaw ñu seetaan rek fii tamit di fi gisaat lu am solo waaye ku ci ñëw ñu bëri dinañ këpp ku ci ñëw këpp lu leer laa la wax waaye dina saf sàpp nag ndax boobee nga moytul ma waa kawur ba la sol lu bula la te dëkk kawur muy xaw jémbay dina defaat tey lu garaaw de démb defoon na lu garaaw acca mu ngi noonu xale yaa bëgg tàmbali they about to start for the 400 meters under 15 girls category they are on their marks get ready the whistle has gone they have departed into the first round. This is going to be a very tight one, it looks like. They are very young girls, very energetic, which they are showing their fitness. I know the weather, the weather is not favorable at all, but they would be very much prepared for the challenge as we speak. waaw affaire bi fi muy yàqoo mooy ki nga ko sol lu weex moo njëkk a départ ndax moo jël leen number one te foofu ah, foofu yaa yaa jiitu waaye fi ngay fi mooy mbir mi ndax boo xoolee sax léegi wecceeku wecceeku wecceeku wecceeku am na ndax am nañu ko raw nañ ko léegi waaye boo xoolee tamit ah jéen ak moom tey tey moom mi ngi des ginnaaw de jéembay dafa mel des na ginnaaw léegi nag affaire bi fii a léegi ñu ngi si final round bi xale ya ngee ñew gis ngeen ne loolu acca ñu ngee ñew on the 15 category amadou borom lu wex li mi ngi mi ngi koy mi ngi ñewat de ngay ñafet mi ngi ñewat bu baaxa baaxa baax a baax na gaay wo oh, koku daanu na o oh, mom génn na ci way jogat na ndeysaan o oh, way du mëna dem kaay leen ko kaay leen ko ana rek gros kaay leen ko flat mo ngi nonu daanu na tangay bi you need to help us as uh, she couldn't make it yes.